li ci nak, nag danaa ko yeggale ba mu yegg fu mu war di nuyu it mbokk yi fi teew yëpp sëñ Modou mii koy sant di ko gërëmit ngir yàlla ak ak mbokk moom mii sax moom gën a noppal ci lu bari ci Touba ak lépp luy xew-xew yi foofu moom moo ko jël ni ma yow nekkal ca rek man bu ma nekkee ci lii rek loolu day mat sëkk mu féete ma foofee ñoo bokk bàyyi ñoo bokk lépp barki démb ci mujj taxawaay bii xewoon ci mbokkum taalib mii di murit moom mii moo taxawee lépp li seen wax léegi ñëw na ànd ak jarbaat yi ak magi taalibe yi ak dëkkandoo ya ñi war a àndal ñëpp ñëpp dama ràññi leen xam leen ni ma leen mën a xame gis naa ñëpp dégg naa it kàddu yi dama lay dalal rek ne yow moom ñooy seq bis bi ba waxtu bu ñu yeggalee ci yow rek ndax fii boo fi toogaloo nit man nga fay toog dalal gan ñi yeewi gan ñi jërëjëf sëñ Cheikh Mbacke solution jërëjëf yow xam nga ni kàddu gu benn la ndax bu ma ñëwee ci màggalu Daarul Karim da ngay jël lépp dem toog na le ma yaay sama mag